isiobati point com et isiobati salaamaaleykum internet Lutte TV point com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey vendredi 9 octobre ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Kormama maa ngi Omar maa fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV di la ziar si bi rek di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq Lamine ni nga ko waxee tey la àjjuma vendredi 9 octobre ñu ñëw ak yéen si kaay noonu la mu daal di fësal ki nga xamante ne moom mooy coach écurie Fass mu wéeju turu Abdou Gueye ay kàddoom nag yëkkati na ko jëmale ko ci CNG bi li mu ci njëkk a wax mooy dañoo war a nettoyer CNG de lutte. waaw mu mel ne Omar Abdou Gueye nga xamante ni tey coach la fële nga xamante ni tey moo di sa écurie Fass journal bi dalal na ko Omar Seck ak moom waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu mu wax ci lamb waaye waa tamit wax ci cadre li nga xamante ni Omar moo di CNG parce que depuis loolu bokk na si li nga xamante ni tey kenn mënul wax làmb wala chaque jour boo gisee boo ubbee journaux yi da nga ko siy gis nag mu mel ne ne Abdou Gueye wax na li nga xamante ni tey maanaam loolu noonu noonu la Matar Ba war a def li nga xamante ni tey moo di CNG bi nee li nga xamante ne moom mooy candidature fa la Matar Ba war a commencé mbir. waaw nee na Matar Ba li mu war a njëkkee mooy maanaam def appel candidature wax sa xam-xam wax sa yaakaar naa ne tey jàpp boo xamante tey moom a tëral buñ la fale wala buñ la jiitalee tax na daal Abdou Gueye bu boo xamante ni tey gars yi dañuy ñëw ku si nekk maanaam andi li nga xamante ni tey mooy sa proposition leneen li nga xamante ne ni wax na ko nee na bu nekku woon làmb Alioune Sarr kenn du ko xam waaw effectivement parce que jàpp na ne am na fi ay docteurs yoo xamante ni tey liggéey nañ si si si wàllu médecine ba retraité te kenn xamu leen ñi ay médecins ñi ay na bu ko na moom Abdou ne yoo xamante ni tey bu ko waxoon tey maanaam dëkk bi tas waaye daal li leer ba leer mooy ko ne li muy xam ne mooy ko ne Alioune Sarr lu mu mënti defal làmb tamit làmb defal na ko lu ko raw te yàlla yaakaar naa ne loolu moom maanaam ñu bëri duñu ko weddi ba tax na sax neen dañoo war a nettoyer waat CNG de lutte waaw jàpp na ne nag CNG moom dañ ko war a nettoyer ba fa ba tey kon yaakaar naa ne jot na tey ñu dem retraite Omar ni ñu ko mën a waxee rek parce que tey structure yu demee nii faaw ñu ñu organiser ko de telle sorte que di ko def ay mandat mandat wu un an mandat de deux ans nga xamante tey renouvelable deux ñu génne la fa sa morom ñëw parce que yaakaar naa ne pour pour diriger moom maanaam ku si nekk rek am nga yaakaar ne kuñ kuñ ko joxante war na mën a diriger kon bu mosee rek jox sa morom mu mos Omar. nekk na lu am solo ba tax na nee na bu fekkee corps de bi def na liggéey bi nga xamante moom la war a def. ci mbirum CNG bi jàpp na ne képp ku nekk ci CNG bi mën nga cee tëdd kaso. waaw moom moom jàpp na ne bu ñu leen audité woon moom ñu si bëri dinañ leen tëj parce que depuis 1994 jàpp na ne doon def compte yi nga xamante tey moom waroon tey lépp li waraloon tey jàpp na ne am na si yu bëri defuñ ko à la ba tax na bu ko sañoon dañ leen di audité te jàpp na ne bu ñu ko audité dina am ñu bëri ñoo xamante ni dinañ daanu maanaam mbirum dagg yeeg xaalis bi nga xamante ne mi ngi dugg biir CNG looloo tax muy wax ah, waaw ak yeneen ak yeneen xaalis promoteur yi xaalisu manager yi xaalisu mbër yi licencié ak ak yeneen ne yu si bëri tey bu ñu si defoon audit tey ak drapeau chef d'état ak yeneen ak yeneen ak yi si dugg ci xaalis budget yi am jàpp na ne bu ñu defoon audit ñu bëri dinañ wàcc yaakaar naa ne nekk na lu am solo di ñu bari ñu ngi wax naan Tyson wala Yaxya Jóob Yékini pour ñu gérer CNG moom jàpp na ne ñu ñooñu ñaar mënuñoo gérer problème moom nag jàpp na ne maanaam sax loolu sax du problème bi naan diw wala wala ma sàmba wala ma demba du loolu mooy régler problème bi nee na daal na gars yi def candidature ku nekk ku bëgg nga ñëw signalé wu wax sa programme wax sa feuille de wax li nga xamante ni tey moom nga namm ak li nga bëgg ñum ñëx ñi ñi mën a xam que ne kii maanaam am na programme wala am na loo xamante ni tey buñ ko ko joxee dina ko mën a gérer waaye daal di di di di tabb naan diw wala diw wala diw moom jàpp na ne du loolu mooy mën a régler problème wala du loolu moo mën a tax tey nit mën a jiite CNG bi a moom jàpp na ne Matar a xool prédateur wala ci nga xamante ne mooy patriote yi ñan ñoo a gérer CNG bi mu jël CNG bi teg ko ci seen loxo waaw loolu moom xam naa ne nag le ministre Matar Ba moo ngi ci mu ngi ciy dox mu ngi ciy wéy di xool ki nga xamante tey moom la jàpp ne maanaam mooy ki gën a yellool tey ñu jox ko ngir mu mën a gérer ñu jox ko rek mu diriger CNG bi yaakaar naa nekk na lu am solo revanche bi nga xamante ne ni moom la ñu bëgg a indilaat diggante ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 seen premier combat ñu nul deuxième bi Eumeu Sène daan daal di koy daan fi mu nii nag Boucar ñu ngi ci ay nii dafa mel moom moo ko téye moo tax journal bi jàpp ne daal Gaston mi ngi négocier ak ñaari camps Omar waaye ni ñu ko mën a waxee rek lii bu ñu ko def pour man làmb mooy perte tey que tey ñii bëree ba ñetti yoon nga bëgg leen boolewaat tey pour man tey jaadu na ñu def mélange rek grand contre petit bi gars yi di bañ ñu def ko parce que loolooy déclare làmb ñii ku si nekk tey ñii ay deux ans la dese ay trois ans su fekkee ne da nga boole seen biir ñuy bëre expérience làmb bi ñu xam am ak yeneen ak yeneen dañ dañ dañuy retraite ak moom nax saay ak moom waaye jaadu woon na ñu def grand contre parce que ñu bëri ñaari yoon nga bëgg leen boole ñu bëriwaat pour une troisième fois tey loolu yaakaar naa ne loo xamante ni tey a bàyyi a bëre imagine toi tey génération bi fi nar a nekk tey nar a chômer Rose Malick Niang Moussa Ndoye ñeneen ak ñeneen ba si Modou Anta ñoo xamante ni tey ay jën kayre boo yoo xamante ni tey ay avenir làmb lañ ba adversaire ñu mën a bëri nga jël ténor yi nga xamante ni tey li leen dese si làmb bëreetul di leen boole tout le temps ñuy bëri pour man tey loolu avantage la ci promoteur yi ak avantage la ci mboro yi waaye du avantage du làmb en en général ni ñu ko mën a waxee Omar nekk na lu am solo parce que bu ñu waxee làmb à chaque fois dañuy wax ñu ne génération bu bees bi la ñoom ñoo nekk relève bi ñoom ñoo ñëw pour jëlee fi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon boo xoolee en 2013 nii ñekkuñu fi woon ñoo fi nekkoon beneen génération daal di ñëw daal di leen fiy jëlee kon nañu boolee ndaw ñi ci làmb ji parce que nag Boucar du ma la ndaw ñi nekk nañu ay ndaw yoo xamante ne nii bu ñu leen moo tax rek bu ñu ko sañoon daal ñu boole leen si def grand contre def combinaison yoo xamante ni bu ñu ko defee sponsor yi kenn du leen woo ñoom ñoo ñëw am na sponsor yoo xamante ni tey ñoo xamante ni ñi ay chef d' lañ ñi yore ay produits ak yeneen ak yeneen ñi nekk ay directeur commercial ay ay ak ay entreprise am na combat a sponsoriser si combat bi liggéey lay laaj rek waaye promoteur yi nag ak système bi ñu am léegi ku si nekk maanaam tey sa intérêt bopp ngay xool ba tax na moo tax làmb gën a sooxe ni nga koy gisee nii Omar yaakaar naa ne am na solo torop combat la boo xamante ni Tapha Tine daf ca war a pour wane ni moom ba tey fi mu nekkoon la nekk boo Niang war a ñëw pour prouver pour jàll dans les cours des grands mu nekk combat boo xamante ni dafa am question bu ñu ciy laajte ku daan ci ñoom ñaar ak ku daan ci Ama Baldé moo doon ndax mën na leen boole combinaison la boo xamante ni tey yaakaar naa ne tey. ay experts yi wax wala tey journal bi ñëw rek andi ko si si moo di ibakan ibakan yàgg ci làmb yaakaar Omar loolu lu jaadu la nekk na loo xamante tey war na mën a nekk tey ñaari mbër yi ku si nekk ñu ku gañe ku gañe fii ak ki gañe fee ñu boole leen pourquoi pas kii daanu fii ak kii daanu fee ne bu nekkul ñaari mbër Pikine yi tamit ñu boole leen yaakaar na ne tey war na parce que tey bu fekkee ne tey Tapha Tine moo da Tapha Tine moo daan kee daan mën nañ boole ñaar ñooñu waaye su fekkee ne tey supposons tey boo ñaar dafa daan Ama Baldé daan pour nga boole leen ñoom ñaar ñoo bokk Pikine wala ñoom ñaar bu ñu daanoo tamit pour nga boole leen day métti waaye daal ak lu mën a ti am daal journal bi jàpp na ne ñaari combat yi moom ku si daan war nañ leen mën a boole yaakaar nañu ne nekk na lu am solo parce que boo xoolee bu kër làmb noonu lay doxee ay combinaison la làmb di doxee mu nekk loo xamante ne ni lu amaam solo la écurie bi nga xamante ne ni Boucar moom mooy euh, écurie ñoom. Euh, ñaari yaar ñaari yaar. Hmm. écurie la boo xamante ne ni fi mu toll nii nag ñu ngi ñëw bu baax a baax. ndax boo xoolee écurie Pape Pape Dame. Hmm. am nañu trois victoires ak benn défaite. waaw trois victoires ak benn défaite Omar mu nekk loo xamante ni nag ñaari yaar fa la nekk waaye ñaari yaar ni comme ni ko gisee rek. dafay somé mu mel nag ñi fa nekk ñoom tekk jël ak Pape Dame Mbaye nekk na daal loo xamante ne nii yaakaar naa ne euh, euh, ñu ngi góorgóorlu waaye war na mën a ëpp noonu combat yi surtout si écurie bu toll noonu Omar daal kon nañuy fexe rek booy yi di di di mën a bëre wala booy di am combat Omar loolu bokk na ci lii gën a dundal écurie. bokk na ci liy gën a dundal écurie waaye Boucar bu ñu waxee mbirum euh, Alioune Sarr ki nga xamante ne yëkkati na ci kàddoom moom mooy Mbaye Ndep Mbaye Ndep nag nekk na koo xamante ne nii waykat la ci làmb séeréer yi ñu bëri ràññee nañu ko li mu wax nag moom nee na. Alioune Sarr toll nii nag dafa war a des. waaw moom nag maye de jàpp na ne daal Alioune Sarr war nañ ko mën a rek mu dirige maye de la yoo xamante ne tamit euh, ku ci nekk rek bu ko réew sa boor parce que ku ci nekk jàpp nga ni làmb ji am na ko ko mën a doxal ñii jàpp nañu Alioune Sarr bu toogee mën naa continuer ak làmb ji ñii jàpp nañu ni fii ak demul làmb yi du mën a avancer waaye nañu xam ni teen la goo xamante ne nii ku ne mën na cee root ndaxte làmb moom moo ci gañe bu ñoom ñëpp xaaree itamit làmb moom moo ciy gañe ba tax na ba ci journal bi itamit bu yaatoo yaatu nga xamante ne mooy kase bi mu am bi gën a bi gën a bi gën a ngande jàpp na ne 700000 la woon si boo boolee diggante CEDEAO yi nga xamante ni tey maanaam wéyoon na ko fi ak transport yi nga xamante ni ko ko tey pour ñi nga xamante ni ñoom lay àndal waaye tamit wax na si nga xamante ni tey maanaam mooy que ne si si làmb moom nag jàpp na ne mosul am mbër parce que nee na métier bee ko laajoon mosul am mbër boo xamante maanaam marqué na ko wala daan na la supporté parce que liggéeyam la daan def xamoon ne liggéey bi daaj mu si daan dox waaye tamit wax na si li bi amoon ak déggoo bi loolu yépp may def yaata na si loolu loolu si biir journal bi Omar yaakaar naa nekk na koo xamante ci làmb koo xamul dégg nga ko ndax baatam benn la woon ñu jàll nag ci journal bu record mu daal ñëw ak ñun ci ñaari jàpp nañu ni ñoom ñooy promoteurs yi gën a mag ci combat yi ci dernière minute. waaw ci dernière minute daal mu mel ne mooy ñaari promoteur wala combinaison yi nga xamante ni de diggante Assi Ndiaye ak Gaston ñooy organiser maanaam les derniers derniers combats rek ni ñu ko mën a waxee les les rois des derniers combats mu nekk nag maanaam jàpp nañ ne ñii ñu organiser ku si nekk bi ñu organiser maanaam say dernier combat da nga ko ñàkk surtout nag yi nga xamante ni de bi. maanaam def ab gëstu boobu noonu wala def jàngat boobu noonu tey si diggante ba Balla Gaye ak ñi mu a laalal yëpp menum baabooy yaakaar naa ne Omar moo si am chance que bi mu génnee ci combat boobu na combat ba amaat na combat ba gagné sax boo xoolee ci digganteem ak Baye Mandione la woon te ba mu ci jógee ca la tekki ngembam ñu bari naan jaadu na ak jaaduwul waaye ba tey ci diggante coow mbër ak promoteur Eumeu ak ki nga xamante moom mooy Gaston journal bu record daf leen daal di fësal waaw mu mel ne journal bu rek diw am na droit ne kii laay bëral am na tamit bëgg-bëggam rek lay wax kon Eumeu tamit bëgg maanaam du nekk noonu loo ni ñu ko mën a waxee rek Omar ku si nekk am ah, maanaam sa intérêt ngay xool rek kon yaay xool sa intérêt ak li la gënal ak li nga bëgg li nga namu rawatina nag ki nga moomul jëndoo ko juróo ko yaakaar naa ne daal moo tax journal bi def jàngat wala def question boobu noonu Omar. am na solo torop ndaxte Eumeu Sène day liggéey comme ni Gaston di yaakaar naa ni leeral tey loolu rek la woon bëgg. leeral yi Omar loolu la woon di la bëgg di la nuyu di la ziar nag màggal nañ si jàmm ak salaam di ñaan rek lépp lu ñu fa jaamu yàlla yàlla nangul ñu ko fulandiku lu kawe suñ jor gàmmu ju ñu jëm tamit yàlla yóbbu ñu si jàmm balaa boobu corona jeex tàkk si réew mi Omar activités yi mën a démarrer na ñaan jàmm si réew mi parce que jàmm si la lépp xaj Omar gis nga depuis sept mois ngi nii kenn xamul li nga bëggee kon nañ ñaan jàmm parce que coow li yee coow li coow li yëpp jàmm moo moo moo am solo moo ëpp solo kon nañ koy sàkku na nañ koy sàkku Omar saa su ne